ci li président sant pour que événement yu mag yi yëpp fépp fu ñu am Senelec bi nga yor service public de l' électricité taxaw taxaw bu mu war a taxawee instruction aussi yi ñu ministre bi jox mooy bu dotee nii ñu wër foyer religieux yëpp rendre compte ci li def loolu moo taxoon tey jii ñu ñëw jàkkaarloog bi expliquer ko lu Senelec def yëpp damay wax rek ne Tiwaawoon ren gi bu

en dernier recours benn incident boo xam ne xamuñu ko ñu mun taal groupe bi mu continuer alimentation bi loolu yëpp buñ ko expliqué xalif bi mu rafetlu ko lool ñu sàkku ñaanam nag ndaxte ñun si wàllu technique bi lu ñu waroon def def nañ ko moo tax ñu ne ko mu ñaanal ñu ba nga xam ne buñ si am benn ndog-ndog bépp buñ si am benn gàllankoor boo xam ne dina mun a biir alimentation bi ma profité rek di wax client Sénélec ne képp ku ñëw wax leen ne dama leen di dépanner mais danga may fay ñaari junne wala ñetti junne ngeen xam ne kooku du agent Senelec bu ngeen ko mënee dénoncer ngeen dénoncer ko bu ngeen ko mënee jàpp yóbbu police ngeen yóbbu ko police ndaxte agent Senelec du dépanner nit di ko laaj xaalis ñoo ñooñu ñëw di dépanner di laaj xaalis mooy ñu nga xam ne ñoo jaar si ginnaaw yàqu courant bi pour bugg am leneen lu ñu fay pour ñu bàyyi si xel bu baax a baax leneen lu ñu def tamit mooy dañu jël ay équipe bu permanent yoo xam ne ci kër yi ñu comité bi wax dañ leen fa teg ndaxte bu kilifa yi amee soxla wala ñu am problème ci courant ñu nekk à côté mun a gaaw a def dépannage bi rapidement wala su ñu amee ay problème utilisation compteurs yi ak yooyu ñu mun leen jox conseil yu nécessaire loolu lañ ñëw expliquer ci tey xalif bi mu rafetlu ko ñaanal ñu donc ñu ngi dem rassuré wu. di continuer mobiliser wu nak ba gam gi jeex inshallah délestage mom amatul ci réew mi Sénégal yëpp délestage amatu fi kon donc mënul am fii ndaxte léegi am nañ production bu doy bo xamante ni nii na couvrir largement demande bi donc problème bobu amuñu ko.